boo leen gisee fi ñu taxaw ngeen xam ne ñi ngi ci waañ ñi ngi ci waañu nag Ngoma Fall madame Thiam moom nag dañ ko seet woon ndax tamxarit bi daf ñuy indil ay feem ay feemu tamxarit nu mu nar a toggee cereem balaa loolu ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. tamxarit bi tey koo nar yekkal ba pare tamxarit bi. ah tay mom ku xol euh, cere tam xarit bi man na defar rek xam ne pour monsieur cham la moko mom mom la ko fas yéenee toggal ko ak sama goro. Ngoma fal nak aktris ni xamé ngén ko muy actrice bu mag ngén xamé won ko si cor Dior ak Dior euh, yan fem nga ñuy indil nga yok yan fem nga yok ci cere parce que cere mom ku nekk ak sa ah, def ay salang salang yu bax waaw. kon ñu dem marché té ñew mu woon ñu la nak lan lay jënd. waaw bu boobaa. jigéen daal di ne bu tayee nga mer bu subaa nga tubaabe jeune di magee di soppale ko nii jigéen daal di boo xefee mu poosa nga xifi mu gërëfe am bët ami weeku du karaw nii di ne waañ week seen seem xeet wi ak feemam takkusaan takkusaan tay baas tay maam bëri mbubu nii jinne jigéen ñi la yàlla taal ndax bëccëg la ndar waaye bu guddee ñu leer nañ daaru ba kaaru sañse ba mu baax dox dox bu ndaw yow wax wax ju sew jinne may mun ndugginen ba banyau, ngoma kordior ah ndugginen ba ñaw yobbu nga ñu sakanal mom nak supermarché la dugg ak ñun yobbu ñu sakanal lan motax nga yobbu ñu fofu euh sakanal dafa nek nimbal njabot parce que lepp lo gis rek am ci boutique yep amna sakanal yomb seni seeni produit pour njaboot la daal noonu laa ko mën a waxee tax man ma dem duggee fa sama tam xarit bi. kon lépp foofu la am. lépp foofu rek la am sakkanal. mën nga ñu wax lan ak lan nga fa jënd. Euh, sakkanal am na lépp euh, mina bi maïs la ku ko dégg xam nga ko booy def cere il faut nga ko ko pour mu feeling bi. te ñoom ñoo koy defar ñoo koy boisson xani bi pour naan la sa xol bi. bu feex ñoom ñoo koy defar kon sakkanal. sakkam sakk <laughs> kon neex na. léegi ñu ñëw si cere bi cere la ak lan ngay soxla ce cere feem feem. waaw ah, cere salañ <laughs> salañ naa soxla sama tomate euh, samay légumes carotte soxla sama ñàmbi dina am pataas am chou yomb bi ñëpp xam nañ ko cosaan la mm-hmm. fi lañ ko fekk suñu maam moo tax. booy togg cere rek dañ ko siy diigal dañ mu génnee filin gi. ndax cosaan la raisin yaa ngi nii poobar bi kaani bi xorom bi moom mooy safal xorom fu mu amul du saf yëpp a ngi nii si biir ñoom kaani salaat ak yëpp samay ginaar yu baax sàndaale si samay pigeon mu sakkanal la fi jaar sakkanal sakkanal dimbal njaboot muy jaay lépp waaw ñoo fi jaar rek yàpp bi da nga si am préférence benn côté yàpp wala boo am rek na nooy waaw man na nooy te duuf boobu mooy daaneel ndax mooy daaneel monsieur Thiam poobar yeeg laaj yi sax sakkanal lépp lépp soo paree rek naan sa tee diigal poireau si biir lépp lépp ndax cere bi ñu dem nga won ñu ni ñu toggee cere ay ci leen topp leen ma léegi nag ñu fas yéene ma dëpp sama noqos pour ne sama ginaar yi ak yàpp beeg ñoom pigeon yooyu ñoom safal yooyu ngoma nga piqué sa ginaar léegi après lan moo ci topp lan ngay defaat. carotte ak ñaambeeg pataas même chou ñoom lay xolli. lan nga koy def danga koy jiigal da koy saaf. dama koy bërëm maam yi dama koy bërëm. maanaam. <laughs> ay feem la wala. ay feem la koy waaw. fas yéene rek ko goût bi mën a génn xam nga dafa am goob boko ko nak day gëna neex gannaaw bi nga ñulugee ba paré di xaar sa ñulug ndax légumes ah, ñi ngi ci da nga tek benen cin lu jëm ci cere bi naka la. teg beneen cin rek fa seen tey sama cere kaas ko ak ndox mu tàng ma tey ko sama inde su ma xaaree ba mu suus ma teggi teg jël sama laalo laalo ko après ma tayaat ko. légui ni ngay dëbbaat nii lan la. noqaf bi fas dem ci soos bi rek lay laay ni nga ma gannaaw bu ñu kaasé suñu cin tamit ñu ngi koy bàyyi soos bi muy guus guus ah. ya léegi lan moo si lu ñu wax a def nag. Euh, cere bi pare na soos bi pare na léegi nag xam nga lan moo des dem génn si biti jaaga rek tuuti def tuuti salañ salañ ñëw fas yéene taagal lañ sama cere tam xarit xanaa neex. cere bi ko ko njëkk yekkal d'abord damay ségrégation de fara laay njëkk yekkal ndax am goro bu baax yombul te ma dama am goro bu baax moo tax cere bi moom laa koy njëkk yekkal soog see teg doomam nag mi sama xol sama jamaa noir ñu naan ko Amadou Thiam Fatim Sey moom bu am satu ki ma nopp def ko fii <laughs> d'accord kon jeex na keneen bokkul léegi li ñu lay njëkk a laaj mooy ñu bari ñu ngi lay ràññee ci Kor euh, Dior yow yaa ci nekkoon Kor Dior naka la demee woon ba nga nekk fa actrice daan joué. yéen a ngi may laaj nag <laughs> euh, taxoon ñu joué woon ko Papis moo jëloon ñu joué ko film bi waaw mu nekkoon lu neex tamit aussi ñépp xàmmee ma si Kor kon looloo taxoon quoi ndax Papis sama xarit la sama waay la. waaw. da ngaa ñëw casting wala da nga ñëw rek mu jox la rôle bi ne la di nga ko mën. moom dafa ma xool ak samay dégagement rek mu ne ma non sama rôle moom 10 sur 10 ma ne ko amul benn problème <laughs> noonu la demee. <laughs> te fekk boobu mosoo tourné nekk woon actrice. non boobu mosuma tourné fenn xanaa dama doon def ay pub loolu laa doon def waaw. tournage naka la demee est-ce que yomboon na ci yow parce que ki ngeen ko dafa nekk koo xam ni ku yàgg ci milieu bi la.

amoo yeneen proposition wala yow tamit demo uti yeneen proposition lan moo tax yu ma doon proposé mais je préfère dal ma tok ma har ba si kanam ma gérer ménage bi quoi. buñ la fayee xaalis nak bi dee xaalis bi bari nak <laughs> d'accord kon ñu ñu déguster ci katam xëy na balaa muy sedd. waaw ñu xol li ma fëlaale. ak nu mi démé mm. waaw. kan ngay remercier gannaaw bañ toggee ba ñam cere bu neex bi ñu toggal. waaw gis nga de cere bi neex na wala neexul. trop toj nga fi. <laughs> man rek si cere. lépp ak sakanal tamit. <laughs> sakanal kenn du ñoom nag ndax moom seen lépp a yomb maa ngi conseillé bépp jekk nga dem sakanal nga dugg jee fa nga xool doo ko rëccu mukk ñoom ñoo ko yor sakanal <laughs> euh, maa ngi remercier sama jëkkër. sama xol sama amore mio sama chéri sama jamaa noir ndax kenn du moom wax dëgg yàlla nit ku baax la jàppale na ma yërëm na ma suturaal na ma kon aw ma fayam Amadou Thiam Fatim Seye feccaam yàlla na la yàlla bàyyi sama kanam ba nga fekkee say njëriñu njaboot ndax borom baax la borom xol bu rafet la te yërëm na jabaram moom dama koy ñaanal di remercier Maxu production borom Bercy kooku kenn du moom si man sama jëkkër sama parti fi bu ufe nekké fi droite mo mi ngi gauche ndax daf ma bëgg rek daf ma rakam di ma jàppale bàyyi benn yoon wax dëgg yalla di ñaanal uh, si berseem bii mu jëm lim mu bëgg yalla nako ko yalla défal papa da sey ànd sama papa sama xarit ñepp xam naa mom mi papa Diouf goor bébé bass bax trop bëgg ma lool fu ma fekk sagal ma sigil ma kon ñooñu aw ma seen fay ma ngi leen ñaanal bersi bi ñu jëm ci kaw ci kanam bu soobé yalla ndax sëriñ Babacar si fees del lay def maa ngi remercier ñëpp. di wax ñëpp ñëpp di wax sama doom doomu ndey kokot Njaay mi suba ba léegi tàkkale ko ak man di ànd ak man guddeeg bëccëg sama mannequin bu yaa ngi di bii. kon du kenn du moom ak sama rakk yaañ yi toog mama Saadi yi am na ñeneen ñu bëggoon ñëw tamit temps bi moo leen ko mayal ñoo mat si su ma limee daal damay juur waaw tam xarit bi day xat mais ñoom ñëpp maa ngi leen di sama yaay sama papa le monde ku lim juum sama doom yi remercier sama njëkk bu baax lañ